وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne yéen a baaxoo topp chaîne bii di GMT TV di chaîne bu njëkk ci jumaay Touba te daayira xaddamatul xidma di ko saytu ñu ngi di nuyu bu baax fu ngeen mën a nekk te di leen siyaare bu baax di rafet du topp gi nga xam ne baaxoo ngeen koo topp jotaay yi nga xam ne moom la ñuy amal ci télé bu mag bii jotaay yooyu nga xam ne nag baaxoo nañ koo amal mu jëm ci diine ak mu jëm ci loo xam ne ci mbiri àdduna la tey jii ñu ko baaxoo defee rek seen jotaay bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee alman almanbaul muridi di ballukaayu murid gi nga xam ne émission la ci émission yu am solo yi nga xam ne dañ ci tànn ay thèmes yu jamono laaj jamono soxla ko ñu di ko waxtaane te ci dalal ay borom xam-xam yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci fànn yu wuute émission boobu nag dem baaxoo am weer wu nekk Euh, ci ci chaîne bu mag bi ji GMT TV tey jàll tamit ci Lamp Fall TV émission boobu nag di émission boo am solo boobu tey ji amaan na mbégte mu yaa di daral boroom xam-xam bu mag boo xam ne ñépp a ko xam ci dëkk bi ak ci réew mi ngir ay yëngoom yoo xam ne mi ngi koy def ci wàllu diine rawatina ci tasaare njàngarem sëriñ bi nga xam ne génnul diine ñu di ko wax sëriñ Mamoor Mbàkke xam sa diine muy boroom xam-xam di gëstukat di taalifkat di waxtaankat boo xam ne ku ñu miin la te ku ñu faral di diglu ay jotaayam la ndax jàngat yu am solo yi nga xam ne dana ko teg ci wàllu diine moom lañuy dalal tey jii incha allah ñuy fas yéene waxtaanee tomb bu am solo boo xam ne rawatina ci tasawuf rawatina ci yoonu murit lu ñu war di waxtaane la war di ko xam bu baax ngir di ci gën a xirtal nit ñi di ci gën a yee nit ñi muy al iraada as-saadiqa al iraada sëriñ bi bu ci ñëwee dana gën a leer bu baax a baax a baax ndax mën nañ ne bu fekkente ne nit ki def na ko ni mu ware ci lay mën a tudd al murid as-saadiq kon xëy na laataa ñuy dugg ci tomb yi dañuy jox sëriñ bi mu nuyoo rek bu ko defee ñu mën a digg ci waxtaan wi kon sëriñ bi bismillah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa athaaruhum ila yawmi ddin bokk ji di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ Abdou Lahad ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyu mboolem ñu ngi topp ci GMT TV ni ko waxee léegi euh, di seen mu njëkk fii Jumaay Touba euh, ñuy topp yëpp ci al manbaul muridi maa ma'inil xadim yi den ndokkee rek ci euh, ci weer wi nu nekk waaye ci barab bi nu nekk muy ndégub yàlla fi ñaan suñu boom mu defal lu tawfiq ni nga ko waxee tom bi ñu bëgg waxtaane bu am solo la ndax nit bu fekkee dafa nekk ci mbir di ca yëngatu tam aju ci wàllu pas-pas nit ki war na koo xam ba bu ca nekkee xam ne mag ja su ko génnee xam ne génn na ko te dafa mel ni tomb tasawuf la waaye mooy li tënk sunu pas-pas sunu digganteeg sëriñ bi kon nag di ko waxtaani jaadu na lool lool lool ngir ka ca nekk xam ko xam nga wér ndax nit mën naa ne ci mbir di ca sonn defe na mag ja te fekk génn ko bu yàgg te du ko yëg lu xam moo koy waral kon def naa lool moo mooy mooy mooy sabab si tax nday ram xaddamatu xil mu indi tomb bi ngir ñu waxtaane ko ñaan su ma defal na ci tawfiq hmm. macha allah jërëjëf euh, day mel ne loolu moom la sëñ bi di junj rek ci jawharu nafis ne dana araam ci bépp mu kàllaf mu jëf mbir njëkk muy xam euh, lan moo ca nekk wala njëkk muy xam mbir ma rawatina ci jaamu yàlla kon loolu dana am solo lool day wane rek am solo goo xam ne tom bi am na ko solo muy al iraada as saarixa xëy na waxtaan wi sëriñ bi dana ko tënk ci ñaari wàll muy lan mooy dëgg-dëgg iraada nammel googu ñuy wax nga xam ne mooy xiirtal niñ ko xëy na ngi bëgg yàlla di ko xeeñcu ak bëgg sëriñ bi di ko xeeñcu ba mën a nekkum murit loolu sëñ bi dana ci ñëw dana jeexale tamit eh, ci ñaareelu tom bi muy ponk yi nga xam ne moom mooy tënk al iraada googi nii kon euh, sëñ ma Moor bu ñu la doon laaj lan mooy al iraada dëgg-dëgg moom mooy lan jërëjëf sëñ Abdou Lahad al iraada euh, baatu arab la waaye la baat la bu làmb lu bari mooy masdarum al murid murid mooy ismu faa'il bi iraada mooy masdar mi mooy ak nammeel wala bu nga ko doon gën a jegeel ci wax ak taalibe mu mel ni nag namm mooy li tax nit kay jóg tam bokk sax ci melo suñu borom yi suñu borom murit la mooy dafa am iraada nga xam ne xudratu tu daanaka mooy mooy li làmb léppi suñu borom ci lépp lu muy lu muy lu muy bind mbaa lu muy mbaa lu muy dogal waaye su dee ci e, anam gi ñu koy jëfandikoo anam gi tax ñu di ko waxtaanee mooy ki nga xam ne dafa am dafa namm yàlla dafa namm jëmi suñu borom bëgg a jëm ci moom kooku la ñuy tuddee murid murid dafa am ñaari ñaari murid muy muridullaahi ak muridu dunya mooy ñaari min kum yooyu ci alxuraan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxirata am na ci yenn ñoo xam ne muridi àdduna lañu mooy àdduna doo leen tax a jóg am na ñoo xam ne yàlla leen tax a jóg sëñ Tuubaa bu wootee iraadatu kon iraadatullaahi mooy li ko tax mooy li ko tax mooy nam bu sun borom moo moo xam leen boppam ne xaddul iraadati bi xawli saada tarkul muridi ma alayhi la lii dëgg-dëgg ak taalibe ci ne ko borom xam-xam yi définir niñ ko niñ ko jàngale mooy nam mukk euh, mooy bàyyi murit bi lépp luy aada aada mooy lépp loo xam ne ki ma ngi yàlla rek man nga ne aada mooy jëfandiku jëfandiku àdduna yëpp nga ne mbir nekk da ngay xool na ko nit ñee jëfandikoo jëfandikoo ko noonu rek loolu mooy loolu mooy aada mu ne soo bàyyee aada nag waxtu ca delluwaate te fekk la muy wut amagu ko mooy amagul ngërëmul yàlla wala eggu ko ci yàlla su delloo ci aada moog mu tubbi génn ci dina ñooñ ci moom summa rujuuhu ila al mu'tadi xabla wusulihi ka lirtidaadi mel nag dañ ko laaj kon murit mooy kan mooy ki nga xam ne na nammut lu dul yàlla ngërëmal yàlla képp képp jeegu bu mu seq ngërëmal yàlla ci wut kàddu gu mu yëkkati ngërëm yàlla ci sàkku ay pas-pas ngërëm yàlla moo ci nekk idil muridu la yuridu abada xayru ridar rahmani xaysu xasada mooy ki nga xam ne kon ngërëmal yàlla dong mooy li ko tax a jóg moom lay sàkku ci bépp jéego bu mu bu mu séq mel dañ ko laaj ne ko kooku melukaanam mooy lan mooy day bay bëggati lu dul yàlla wasful muridi tarkuhul irada li wa ci may yafal ma arada mooy bëggati lu yàlla wala bëgg mbir ngir jëm yàlla lu muy bëgg nag na yàlla doo nga lay bëgg lu muy jëm yàlla tax nem su demee nag ba bëggatu dara lu dul yàlla su boobaa nag kooku muy dëgg-dëgg murit te waa lam doon sàkku lépp nag eh, sun boobu dana ko ko jox wasful murid tarkul irada jame yafal ma arada malam yuri shay siwa siwa mawlahu yasil lahu wa xayruhu awlahu waa dana àgg ci yàlla te ba àggee la doon sàkku lépp dana ko dana ko am sin baa doon wax ne murid ko mooy ki nga xam ne bëggul mooy ki nga xam ne moomul dara dara moomu ko dara ndax léppam jébbali na ko mooy ko joxe boppam maanaa ki ki mën dem ci yàlla mun a dem waaye mu seet koo xam ne mën na ko àgg ci mu jox ko boppam soo xasee joxe sa bopp na mawutu mawutu sa dara ndax dañuy wax ne ku ginaar moomaa lee nenam soo xasee joxe sa bopp kon mawutu sa dara kon ka lay wombat fu la wombat jëm foofu nga jëm waaye dara du ko moom it àdduna du la moom bakkan du la moom seytaan say say bëgg-bëgg du la moom waaye yàlla rek lay moom maanaam eh, eh, yàlla rek ngay moomatu jëm al muridu man laa yamliku man laa yamliku shay'an wa laa yamlikuhu shay' murid mooy kenn moomul dara waaye dara it du ko moom am pas-pas boobu nga xam ne yàlla dong nga ko tax a jóg day bay àdduna ak lépp la mu làmboo eh, wutali suñu borom ta di ko jaar ca anam gam gañ ko gañ ko war a mën a sàkko te ma xam-xam mooy la ci jiitu waaye nangoo wommatu su fekkee am nga ko lay wombat nga nangoo wommatu ci gannaawam ca lam lay jaarli ci ndigal ak tere ngeen mën laa àggale ci yàlla nga tënku ca loola suñ ko doon tënk ci ci ci eh, ak taalib mooy lan mën nañ ko mën nañ ko gàttal ci loolu donte lu yaatoo yaatu la nag. kon ni nga ko waxee rek sëriñ Mamour jërëjëf am na solo lool mooy ni nga ko xamalee dëgg-dëgg iraada mooy lan mooy ak taalibe rek mooy koo xam ne bëggut lu dul yàlla jeex na tàkk ci suñu boroom léegi ki nga xam ne nag moom moo koy def kooku lañuy tuddee almurit kon ngir nit ki mën a nekk almurid il faut iraada boobu mu nekk ci moom lépp luy àdduna nag da koy bàyyi bañ koo bëgg ni ko junjee ci ñaari minkum yooyu mi minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul axira te sun borom nee na wa man araadal axirata wa saxa laha saxiyaa huwa muminun fa ulaayka kaana sayu sayu fa ulaayka kaana sayuhum mashkura koo xam ne bëggut alaaxira la bëgg te jëf lu baax te nekkub jullit kooku jëfam yooyu danañ ko sant bu baax a baax a baax kon loolu mel na ne moom moom la suñ borom bëgg nit ki ci jëmmam mu doxee ko ci kaw àdduna sëriñ bi ci loolu rek lay jàngale ci loolu la wootee mooy koo xam ne du bëgg dara lu dul yàlla yàlla rek lay jeex tàkk ci boromam. kon loolu am na solo loolu kon mu mel ne léegi nag jëmmi iraada googi daa mel ne am na ay cëslaay ay ponk yoo xam ne ci lay taxaw ngir mu mën a am kon sëriñ bi yooyu yan ponk la. ponk yi nga xam ne ci la iraada bi sukkandiku ngir mën a nekk. jërëjëf sëñ Abdou Lahad loolu sëñ Tuubaa boobu moo ko jàngaleel boppam mbir mu nekk rek faaw day am ponk yu mu taxaw ay wos yu ko téye li sëñ bi wootee dara génn ci lislaam mooy indiwul lu yees sosul dafa sof wan na ki bëgg a àgg ci yàlla kon faw di wut yàlla kon faw mu sukkandiku ci cëslaa yooyu ngir ak iraadaam mën a dëgër muy juróom-ñaari ponk loolu sëñ bi wax ne li yantabi kullu muridin saaliki raamal wusula lil badiil maliki ala umurin filuha buruuru wa tarkuha min alhawa guruuru wa hiya sabatun bila ziyada wa man yulazimha yaxu siyaada nee na képp koo xam ne dafa dafa dafa sóobu ci yoon wi te bëgg àgg maa ngi koy yee ci ne ay mbire ngi yoo xam mënut a mu tënku ca te tënku ca mbir yooyee ca lay nekk nit ku baax maanaam yooyu mooy mooy ak mbaax mooy mooy mooy li ñu tuddee buruur mooy ay ay mbaax sax waaye ñàkk caa tënku nag ka ko def na mel na ko woon ne bakk say bànneexam war na ko daa juróom-ñaar la yoo xam ne ëppul yeesul waaye ku taqoo ak ñoom dana làq ak càng waaye daan doon ab sang bi muy lim nag ponk taalibe gu dëggu lim njëkk a tudd mooy xidmatu mooy liggéeyal yàlla wala liggéeyal sëriñ bi mën nga ko wax ndax liggéey sëriñ bi mooy liggéeyal yàlla ndax xidma buñ ko doon leeral mooy liggéey boo xam ne yow mi koy def defaloo ko sa bopp keneen nga koy defal ay sàkkoo ci pay gu teew nag mooy sàkkoo ci dara tey waaye ngërëmal yàlla payu ëllëg nga cay sàkku kon moo tax yàlla la di ko defal nag sëriñ bi te jëm yàlla dong tax neen mooy bi njëkk ci ponki tari bi ku dëggu awwaluha al xidmatu li cheikhi nasix di wacce baaxin xat ataminul fasix ba ko ñaareel mooy nga bàyyi gaaral ak diingat di ñaar yoo xam ne néew nañ ñu ci mucc ci noonu gaaral mooy sëriñ bi wax ba noppi nga ne sëriñ bi de wax nangam mbaa mu jëf nga ne sëriñ bi de def nangam wala daal ngay laaj mat ay waxam ak ak ak càmba di xel di xool loo ci jàpp looy bàyyi wala loo ci rafetlu ak loo ci ñaawlo lu am am looy rafetlu ci wax sëriñ ñaawlo mbaa ay jëfam nga seet loo ci rafet loo ci ak loo ci yëpp gaaral nag mooy tudd ci ay baat warutoon def nag wala warutoon wax nangam loolu moom néew nañu ci mucc ci ñun te ne mooy ñaareelu ponk ci ponk ponk tali bi ko dëggu te da koy bàyyi ci saaxir bàyyi ko ci baatin bàyyi ko ci saaxir mooy doo ko wax mukk ci sa laam bàyyi ko ci baatin mooy doo ko fas mukk ci sa xol wa thaani tarku li'tiraadi zaahira wa baatinan bi an yakuna taahira kon da nga ko bàyyi ci zahir ak ci batin doo gaaral doo diingat ba ñetteel ci ponktal bi dëgg mooy faw nga xam lu say farate jëmm ndax nee naa la sëñ dara génn ci lislaam kon xam-xam ab ponk la ca waaye la ca te ñàkk mooy say farate jëmm ndax farate jëmm mooy li nga xam ne kenn mënu caa wutu kenn ku ne yaa ko defal sa bopp kenn mënu laa wutu julli la tisbaar kenn mën laa wutu war a la ramadan kenn mën laa wutu kenn ba ba ba ba ponk yi jeex farata yi jeex xam lu googu nag mooy ñetteelu sart wala mooy ñetteelu ponk ci ponk talbigu dëgg talbigu dëggu thaalisuha taallumul furudi al mutaayanati bi tafridi ba ko ñeenteel mooy waaw da ngay jébbulu jébbulu mooy jaayante lu suñ euh, alxuraan di wax jaayante ndax jaayante gannaaw boo suñ boon digale yoonu saas ne nga woote bu woote ba lislaam dëgër ba bari la ko door jox ndigal jaayante ne ko ñi bala suñ boon nangu seenu jaayante dañu seen ngëm dañu jaayante ak yow saxaabi yëpp jaayante moom moo tax suñ boon ne ko ñi jaayante yow yàlla lañ jaayanteel te suñu borom nangu na seen seen seen jaay seen jaayante ko les yu bàyyi onaka ina bàyyi yu bàyyi onallah yadullah fa xëy dihim wax it ne ko yàlla gërëm na way gëm yi kaso kero bañ jaayante yooyu ci ron garab ga kon jaayante googu mooy moom moom la moom lay wax ci wolof rek jébbulu kon jaayante muy jébbulu mooy ñeenteelu ponk ci ponk taal bi dugg waaye jébbulu ko da ngay bor ko rafet njort ca kay jaayanteel ndax jaay rafet rafet njort ga mooy tax sama xel dal ci jëfe ay digalam sama xel dal ca bàyyi ay tereem ki nga rafetu njort mën naa di digal nga sikka sàkk mbaam tel nga sikka sàkk waaye bu boo ko doyloo rek sa xel day dal ci jëf ndigalam sa xel day dal ci bàyyi ay tereem wala sëñ bi ne arabihu fastislaamukum bi xusni zannin fa suu zanni muddel xal si mooy ñaaw njort dafay dafay alak dafay juróomeel bi mooy nga aju ci sëriñ bi aju gu wér aju goo xam ne xol bu wéri di xol bu mooy sikk sàkkaak dengi dengi te ñàkk a rafet njott mooy mooy yóbbee loolu mooy da ngay da ci li def aju nag damay wax ne sëriñ bi moom la ëpp lu muy jëfandikoo néew la suñ suñ wa néew na lu naan samay taalib mbaa samay mbaa mbaa waaye li ëpp muy jëfandikoo mooy ñi aju ci man al mutaalliquna biya baatu taalluq la ëpp muy jëfandikoo kenn ci mag ñe ne ma bañ njaay mas na ko ko laaj ne kon de mbàkke bëggoon nanuk leeral ci baatu taalluq muy aju sëriñ bi ne ko laaj nga lu mat laaj wol fere yi wol fere yi mooy wol taalibe bi masaan wax lu yitteel day woote lu bëgg ñëpp fekk ngir ngir ñëpp jariñu ci mu mu ne ko taalluq mi ngi mel ni yow mu sol saw dal di dox fi barab ba am loo joggi loolee tax ca dalloo te bañ koo kël ngëj tama ne nekk dalloo ci nekk waay ba loolu mooy xam nga su fekkee da ngay dox ba yàgg nga joggi lu lu lu rëy tax ci saw dàll lu mel ne xeer wu ñagas wala xooxu màngo daal loo xam ne rëy na ba boo doxee mu tooy si tànk mooy nooy def da ngay taxaw dindi ko sànni mm-hmm. lu tax mooy da koo kël ngëj moo tax mm-hmm. moo tax mu ne kon na ko na tax da bañ ko kël ngëj suñ toogee ci yetaa bi yàgg ñu ne am na luy xeeñ mm-hmm. suñ seetee suñ ko dañuy wax ne nañ seet dàll ya buñ seetee dàll ya wuñ ko fekk dañuy génn nag moom xeet ko ci biti ba mu seet ñu delloo si dàll wa mooy mooy la ko war mooy dafa mënute nekk dàll wa ci nekk waay mu ne su muccee ci ñaar yi nag fa dàll wa teew loolu dina fa teew daal loolu mooy temps loq kon mooy taxaw sëriñ bi taxaw sëriñ bi tekkiwut fu mu ne ne fa la muy tekk mooy foo man nekk loo ko sori sori na nga fay nekk ndigalam doy loo ko eh, tayit la muy digle nga di sax dàkk rek muy nga di ko bàyyi nam bëggoon mel nga mel noonu loolu soo ko defee waxtoon ne yaa ngi taxaw sëriñ bi loolu sëñ sëñ mbay jaxa doon tënk naan eh, sëriñ ku aw ndigalam ya nekk fi wanagam na fi xolam ab ñu koy moy ndigal safu ko te donte yaa ngi fi poojam tey mooy ndigalam seenu diggante fi sundar loolu kon mayu ko te donte yaa nga fa manding mooy àll bu sori te donte yaa nga fa manding tey jëfi ndigalam xamal ni yéen nga riso riisoo yàlla seeri na ko kon jege sëñ bi sori ko kon du ci jëmm waaye ci melokaan la ci doxin te ci pas-pas la kon ci nga ko jege ci nga koy sore moom la wax ne xaamisuha taalluqun bila marad xalbin bi shakkin aw aw tatatubin arad aju googu Sëñ Tuubaa daana ko misaal ci ak saxaar dadaa wax ne bu leen jaawale ñaar ndax niroo na te wóote mooy necc ak saxaar ak nefi ak saxaar necc ak saxaar mooy ki dem ci ab gaar dëgg bee dugg ci saxaar gi toog soo yaa saxaar gi fu mu dem dana nefi ak saxaar nag mooy yaa ngi ci gaar bi saxaar gaa ngi ci gaar bi waaye duggoo yow bu saxaar deme bàyyi la kon nefi sëñ bi ak ne sëñ bi du benn ne sëñ bi mooy la ma jox ko sa bopp doyloo ko jëfe ndigalam bàyyi teeram nefi moom nag mooy yaa ngi ci xëy na yaa ngi ci ëttam waaye la muy santaan defa ci dara muy tere bàyyi ci dara da ngaa nefi moom rek seequ leen dara kon loolu lu mat a bàyyi xel mooy la sëñ Musaa Ka doon doon juñ ci ñetti eh, bëkk néeg yi ndax neen ñett ñett am bëkk néeg ak bokk néeg ak bukkib néeg bëkk néeg moom baax na ndax neen sa bëkk néeg day toppatoo sa lépp luy bëgg a yàq mu defar ko lépp bokk néeg mu ne koo bokkalum néeg kooka yaa dem sàqam day tibb tey lekk di may ay bokkam bukki néeg mu ne sa sa bukki ku def bukki néeg day doxaan sa waakat di sàcc sa xaalis di fab sa suukar kon kooku musiba la yàlla nañ ci yàlla musal euh, kon bëkk kon day mel ni kon moo tollook li ñu wax mooy aj sëñ bi aj goo xam ne ndax mooy day defar sa lépp luy bëgg yàqu mu defar ko mooy kon ki ànd yow waaye te ànd yow ci lépp nu jëf ndigal bàyyi tere ba ko juróom benneel mooy da koy bëgg moom sëriñ bi da koy bëgg ba mu gënal la si jëm yu bopp gënal si ñaari waajur gënal sa doom doom joojur gënal la ci nit ñëpp sa sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne du ngeen gëm lu dul dem leen gënal seen bopp ak seeni waajur ak seen doom ak ci ñi nit ñëpp kon kon kon kon kon euh, lu lu dëgg la ci lislaam juróom benn ba wala wax ne saadi soha xubbun yaquudi lin jaal muraadi fa munaax bin fial mooy bëgg da yóbbu ci dootoo amuk bëgg ko bañ waaye da ngay jël bëggu sëñ bi def mu sa bëgg def jël ak bañ def mu sa bañ mooy bëgg yàlla rek bëgg sëñ mooy bëgg yàlla ndax sëñ bi yàlla nga ko bëggee sa sëñ bi soo demee ba mu wóor leen a ëmut yàlla da nga ko fa ñu ko seeti keneen kon yàlla nga ko toppee kon moom ko bëggee kon bëgg yàlla la ndax la nga bëgg ngir yàlla bëgg yàlla la te sëñ bi yàlla rek nga ko bëggee ba ko juróom yàlla nag mooy lépp looy sàkkoo ci yàlla nga sàkkoo ko ci barkeem ndax mooy sa bunt ci yàlla alxuraan ne woon na waatul buyuuta min abwaabiha su ngeen dugg ci ab nit da ngeen jaar ci buntu ba gannaaw mooy sa buntu ci yàlla kon lépp la sàkko ci yàlla na ko sàkko sa buntu ci moom saabiuha allaa yuruma faida bi gayrihi mimman ata bil maida fa haadihi atan muxaddamaati li taalibil ismati min xummati kon mhm. eh, juróom-ñaar yooyu nga xam ne am na fu fu ko ñett ñett yooyu dugg na ci biir juróom-ñaar yi mhm. dolli ci na yeneen ñant yoo xam ne kon mooy mooy won ne kon ki matal juróom-ñaar yépp nag kon ci lay door doon murid sadiq kon mooy àndaar yi nga xam ne ci lay murid bu nekk di natt boppam ci nattee sabab fees ko dell la woo ne murid nga sañ ko ko tuddoo sañ ko yoo tamuy dëgg waaw soo ca manqué benn nag soo dee murid di doon ko sadiq te def naa murid bu nekk sadiq la bëgg a doon kon lay tax euh, euh, sadiq googu wér nag mooy kon faaw da ngay fexe ba remplir juróom-ñaari ponk yëpp ci noonu ko sëñ bi jàngale defe naa su fekkente ne waxtu yi waw allah waaw waaw mën waaw su ko defee kon ñu ñu xam ne kon loolu mooy mooy mooy mooy li sëñ bi doon woote ndax sëñ doon woote mooy mooy mooy mooy yeesal lislaam mm-hmm. yeesal lislaam na kon ci Euh, ci aw ci aw doxinam mooy lislaam nekkul nekkul loo xam ne luy ràppalam lu ñu yeesa waaye nag jëmmi ci jëmmi xol yi lay doon ndax pas-pas ndax iraada pas-pas la lislaam lépp pas-pas mooy mooy mooy li ko lal suñ demee na ba pas-pas yooyu yolom ngëm yi woyof yitte yu suufee loolu mooy ràpp lislaam kon ñëw na kon yeesalaat yeesalaat lislaam mooy dellu delluwaat ci pas ya mooy fexe ba dëgëralaat gëm yi fexe ba dë dëgëralaat pas-pas yi waaye fexe ba yëkkatiwaat yitte yi moo tax li woote mooy iraade googu bi ko sunu Boroom di jox digal rabbi asxaabaka bil himmati la ko wax mooy nga tërbiye leen ci yëkkati seen yitte ndax yitte mooy lépp iraade gi li ko ëmb lépp mooy mooy mooy yitte arab yi dañuy wax ne al alhimmatu ahaddu min as-sayf yitte moo gën a ñaw jaasi amul loo koy cor te loolu du yitte mooy lépp nit ki lépp lu mu doon lu yitte lu munta may amut yitte lu mu munta may amut waaye càggante lu munta xañe amut kon ñaar yi dañu dañu dañoo dañoo maanaam rafletu ak ak ak ak himmatu dañu dañoo safaanoo bii mooy may lépp bee mooy xaña lépp moo tax kon mu woote ci ci yitte mooy fexe ba moytu càggante tax càggante nu ko alxuraan xamle nga xam ne mooy yàlla jox leen xol yoo xam ne duñ ko jariñoo ci ci ci ci ci ci ci ci ci yàlla ak jox ne leen ay bët waaye duñ ci gis dëgg jox na ay nopp waaye duñ ci dégg dëgg ulaayka kal an'aami ndax nday nday yóbbu ca gën a ca la gën a suufe bal hum adall ñoo gën a sax suufe bàyyi ma far ulaayka humul ghaafiluun kon kon xam ne kon sëñ bi kon lool loolu la woote moo tax kon yitte nag kon juróom-ñaar yi nga xam ne moom lañ moom lañ leer kon ci yitte ci la ko nit a matale waaw su yitte suufee wala mu wala mu gàtt rek kon faaw da ci am yoo xam ne nit ki du ci mën du ci mën a àgg jërëjëf jërëjëf sëriñ Mamour leer na nañ ñi am solo ci ponk yi nga xam ne ci la taalibi gi ñuy waxtaane di koo xam ne moo namm ak ca yàlla te sëriñ bi woote ko jaare ko ci yitte ju kawe muy alhimma al nga xam ne kim ci woo bu ñëwee nii lay melawoo muy loo xam ne mooy tax euh, pay gi nga xam ne sunu borom digg na ko koo xam ne da ko bëgg te dox jëm ci moom danga mën a am loolu yi kon ni nga ko waxee rek ku ci nekk ci ñuy seetaan ak ñuy bàyyi xel dañuy fexe ba xool yi nga xam ne lim na ko ci juróom-ñaar yi nga xam ne comme nekk ci yow am nga iraada googu te sëriñ biit meral ko ci euh, sifaatu saadixil muridi bi saar googu te mu bokk ci yi nga xool ba xam am nga ci lenn wala am nga ci yow ci manqué boo ci manqué nga mën koo def muy nim ko limee muy bu ci njëkk mooy liggéey yel yàlla liggéeyal sëñ bi mooy liggéeyal yàlla dañ ko waxee mooy liggéey goo xam doo ci xaaruk fay waaye ak bàyyi déng-déng googu nga xam ne bari na loolu lu muy am sëñ bi waroon naa wax lii sëñ bi wartu woon wax lii sëñ bi waroon naa def nii sëriñ bi wartu woon def nii sëñ Muntaxa mu baax mi yàlla na fi yàgg te wér waxoon ci lu am solo ne man sama kilifa dama koy bàyyee ak boppam rek. Mm-hmm. bàyyee ko sama bàyyee bàyyee ko tamit ak sama bopp. Mm-hmm. loolu mooy tarkul instiraat kon loolu tamit bokk na ci ponk yi waaye xam lu say farata nag. Mm-hmm. xam lu faratee jëmm. ndax euh, sëñ bi day faral di wax saa su ne ne li njëkk war ci mu kàllaf mooy mu xam lu faratee jëmmam loolu moom saa su doo koy wax kon loolu ñu gën cee ñaaxaat ndaw ñi waaye gën cee ñaaxaat mag ñi sëñ Muntaxa moom it doon na wax naan buñ jàpp ne njàng daa am ñu ko moom waaye ñëpp ko war a moom. Hmm. Euh, sëñ bi ci ay dénkaaneem mi ngi doon wax naan na ngeen xam lu seen faratee jëmm man war lool naa leen di leen taarifal yoo xam ne. Hmm. ci mbooleem li ngeen bëgg ci diine rek dinaa ko taalif kon nag neen ko jéem a jàng. te la mu waxoon def na ko. Mm-hmm. waaw kay. waaw te dem waxoon de ndax taalifoon nañu lépp. Mm-hmm. moo xam ci eh, tawxiid fiq tasawuf ak lu dul loolu. Mm-hmm. lépp kon taalif na ci kon loolu mu nekk ponk boo xam ne ngir iraada googu mat il foog nit mu xam lu ay faratee jëmmam bañ a wax rek ne. ñii ñoo war a jàng wala ñii ñoo war a jàng waaye ja tey jàng tamit ñu xam ne du wees. waaye niki noonu tamit mooy amub sëriñ. jaayante jaayante amub sëriñ ndax sëñ bi mi ngi wax naan képp koo xam ne ñàkk na sëriñ seytaane moom moo nekkub sëriñam kon loolu tamit loo am euh, solo la loo xam lu mat a bàyyi xel la bañ a wax rek ne man kat kee moo ne woon sama sëriñ waaye loolu mbir mu xew la euh, nangam mooy sama sëriñ wala euh, waaw. xam nañ xam nañ li may juñu waaye li am li am solo mooy nga amub sëriñ ba noppi. li xew rek waaw li xew. Mm-hmm. xasida gi mooy sama sëriñ waaye amoonub sëriñ ba noppi soo ko jàng xasida mm-hmm. ndax mag ñu fi neewoon. Mm-hmm. dañoo amoon sëriñ ba pare di jàng xasida yëpp. boole ko kook alxuraan ji kon loolu lu am solo la waaye tamit. Euh, ndax euh, bu ci am sëriñ boobu ci ngay mën a ajoo nag ci sëñ bi te sëñ bi mi ngi ñaanal ñu bari ñu aji ci moom naj jeyte man bi temps laxuma mina shayaatini fa shukri yasma am na feneen fu muy ñaan naan yàlla nga jéggal ñi nga xam ne aju nañ ci man ci doomi jamono ji kon aju ci moom moom mooy li wér mi nga mi ngoog mi ngoog kon aju googu nag ci ngay mën a te wax ne aju mooy lan. waxuñ la aju mooy nga ne rek man kat euh, sëñ bi laa gëm sëñ bi laa bëgg mooy sama sëriñ. ba pare te li muy digle ak li muy tere defoo ci dara. loolu tamit xëy na boo bu boobaa moom am nay fullay boppam ci nga xam ne boo demee ci jaww mi ne waalaaniyal abraaru fii uxraaya. wan xaadali bi leen tixeen xiraaya. abraar yi moom ñoom ñoo koy dar. yàlla nañ bokk ci ñooñu. ndax dëgg-dëgg ajut boo ko defee mooy ni mu ko waxee danga ngay ci ndigalam bàyyi ay tereem boobaa fu bu fekkoon yaa ngi ba ca fa gën a sori tamit mel na ne yaa ngi taqoog moom rek. Mhm. kon loolu it euh, euh, lu am solo la xëy na waxtu yi moom moo xaw a xat ba duñ mën a jaar ci yëpp waaye am na solo lool waxtaan wi ndax liñ ci doon namm rek mooy gën a fàttaliwaat murit yi mooy lan. ci ba ñëpp ñi nga xam ne léegi jamono ci jaxasoo na bu baax a baax ku jug rek ne man murit laa wala nangam laa te ponk ya sëñ bi teg ngir iraada saadixa googu nga mën ci yàgg daanaka yu ci bari mën nga koo bañ a def kon waxtaan wi am na solo lool xanaa ñu jox la nga euh, tàggu mbokk yi rek leneen du ci leerut loo waroon waxit bu ko defee ñaari mën a euh, yëkkati jotaay bi. waaw jërëjëf li ñuy tàggoo rek mooy xanaa ñaanal Seex Muhammadul Muntaqa mu yàgg fi loolu te wér ndax li ñuy waxtaanee moom da ko dund da koy dund ba noppi di ko di ko wane maanaam da koy wane ci jëfandikoo ko. waa di ko wane ci waxam ci léppam nga xam boo koy xool jëmoro da ngay jàng ci moom ak taalibe ngi ñaan suñu boom yàggal ko fi lool te wéral ko ba lim naan lislaam lépp parce que yéene liggéeyal mhm. yàlla na lépp sotti coleet ci loxoom bu ko lu yàgg-yàgg ñaanu njabootu Sëñ Tuubaa yëpp waaye ñaan ko suñu bopp nu taalibe Sëñ Tuubaa yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu kon mbokk yi nga xam ne yi ñu doon Euh, bàyyi xel ci jotaay bu am solo bii di an almanba al muridi di ballukaayu murid gi tey nag balloolu nañ ci suñ Mamor xam sa diine nan la ñuy gën a euh, amaat euh, pas-pas ci suñu taalibe nan lañ koy gën a dunde nan lañ koy gën a jëmmale yan ponk lay aju ba yoo xam ne boo ci nekkee ñu xam ne yow kat yaa ngi ci li sëñ bi woote woon muy yitte ju kawe nga xam ne boo ci jaaree ci ngay am al iraada as-saarixa muy dëgg-dëgg bëgg yàlla dootoo bëgg àdduna dootoo bëgg dara waaye lépp suñu boroom rek moom ngay bëgg mu jaarale ko nag ci tomb yi nga xam ne euh, wax na ko rawatee nag mu tegtal ñu ki nga xam ne buñ ko toppee buñ ko royee loolee danañ ko am muy Cheikh Mamadou Muntaxa nga xam ne dund na ko jëf na ko wax na ko ñu gis jëf na ko ñu gis wax na ko ñu dégg jëf na ko ñu gis ñu ngi koy ñaanal baax sunu borom bàyyi ko fi bu baax a baax a baax ba naa li mu liggéeyal euh, li mu bëgg a liggéeyal maamam ji suñu borom may ko mu amee ko noona ne ko kawe njortam te ñun ñëpp ñu ànd ko moom kon ñu ngi leen jox dig daje incha allah ci weer wii di ñëw almanba al muridi war a jotaay bi nga xam ne mooy am ci euh, GMT TV di chaîne bi njëkk ci jumaay Touba te muy am weer wu nekk ci fukki fan yu mujj yi xëy na muy ci le bu jëm kaw. loolu lay am ñu jiite ànd ak mbokk yi ñu ngi sant bu baax a baax a baax mboolem ñi nga xam nañoo nekkoon ci jumtukaayu xarala yi ba ngeen man ñoo topp ñu mel ne Sëriñ Jiiru Buso di leen jox dig daje incha allah ci beneen euh, jotaay di leen bàyyeek programme yi nga xam ne mooy GMT TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi wa fi